sama gars yi Fatou Bintou dina dellu France sama gars yi la moo tax ma wax Fatou Bintou dina dellu France ndax tamit euh, dina am action yi nga xamante ne nag dina euh, di si quelque temps rek sama gars yi du yàgg ndax soo xoolee taxawaayu euh, ki nga xamante ne moo nekk yaayu xalil rek sama gars yi action boobu noonu forcément dina am sama gars yi déglu leen ma chronique leen lu ma constaté ndax gis ngeen ni kii di yaayu xalil nu mu jéppee kii di Fatou Bintou ba tax na yéen a ngi fàttaliku demoon na sax pour baalu daanaka mun nañu maire bi dafa refuser li nga xamante ne moo nekk euh, demande kii di Fatou bindu ba tax na nag euh, ba mu mujjee woo Khalil moom nag lan la ko doon wax muy ay wàllum ñaareel pour euh, kii di ya Khalil takal ko ñaareel pour mu indi ko si kër gi pour mu amal ko ay sama gaay nak fa la ñuy bu sama gaay muy euh, kii di maire bi actuellement ni benn xel rek moo nekk si euh, liwam bi muy dal di takal ki nga xamante ne moo nekk xalil ñaareel sama gaay nak pour l'instant affaire dina ke trop trop trop lam moo taxaat kidi ne di faat bintu dina dellu france ndax yaayu kii di xalil dina fexe tout ba kii di faat bintu mu dem am utal ko wujju sama gaay te wujju boobu kan lay doon muy kii di bambi ndax bambi mo fi muy placé pour pour kii di Khalil takku ko mais nag euh, benn promesse moo nar a tenir wala benn promesse moo nara a wàcc luwaawam muy euh, promesse bi nga xamante ne moom la Khalil waxoon na kii di euh, Fat Bintou que ni man ak nu mu munti demee situation bi mu demee du ma la utal wujj. vraiment ni nag parole boobu noonu moom moo téye lépp parole boobu moom mooy base li nga xamante ne moo nekk problème bi bu dee nag Khalil daw na responsabilité ba wàcc wax boobu noonu Fat Bintou amatul leen lu muy defati fii Sénégal comme ça veut que dina dellu fu mu dëkkoon sama gars moo tax nag dina compliqué trop ndax vu que kii di Ibnu daal dinay refusé la kii di euh, baam bi pour mu takk ko comme sama gars yi benn option kese moom mooy des muy kii di Xalil takk nag euh, kii nga xam te moo nekk baam bi te sama gars yi loolu su amee ay crise am doole crise bu énorme lay créer si famille bi ndax boobaa kii di baam bi du arrêté di congaas ak kii di di euh, Fat Bintou te Fat Bintou dootu ko mën a comme benn option rek mooy am muy daal di bàyyi fi Xalil dem ñibbi fi nga xamante ne moom la dëkk sama gars yi te loolu noonu yaakaar naa amul benn objection buñ si def Fatou Bintou takkal nañ ko wujju muy Fatou Bintou génn na gaale bi ndax Fatou Bintou nekkul ki nga xam te day si supporté wujju sama gars yi loolu laa leen indiloon si analise jaa ngeen jëf